Assalamualaikum warahmatullah. rahmatullah kon xanaa dañuy yëkkati kaddu ci turu ni rek jëm ci li ñu fi dajalé tay muy lo xamné daara ji ni soro nako bu yagg jëm ci barab bo xamné da doon barabu jang jang alquran barab bo xamné niko Serigne Matar sa su nek daan ñu fatélé mu doon barab boo xam ne dinañ doon rawuwaay ci ñi nga xam ne mooy suñu njaboot te toll ci ak dal toll ci ak jàng ñu gis ne biñ demee ba gis ne njaboot gaa ngi yaatu te it xëy na njàng mi moom mënta ñàkk ñu ngi jël di leen yóbbu ci ay barab yu fasantikoo ngir ñu am alquran ci lañ amoon mébét ndéem yàlla def na am nañ barab fii ci tuubaa te it muy dëkk bu barkeel ci alxuraan di dëkk boo xam ne it rafet nañ njortu ne boo fi tijjee lu mel noonu barke dëkk bi mën naa tàbbi ci xale yi ñu amoon yéene ji def ko tey nag la suñ borom dogaloon tàmbali gi wala door gi xëy na nañ ko waroon defee wala nam waroon a mel des na lool waaye nag day mel nii ak tàmbalee moom mu am solo boo xasee ba tàmbalee rek lépp loo xam ne lu ci war a yokk la wala lu war a mattali da ngay jooyanti rek ndax waaj gi daa mel ni yàggoon na jàpp geeg ni sër gi it daa mel nii am na ak fo ñuy fomm di fommaat waaye tey nag la ko suñu borom dogal kon looloo tax rek buñ dajee du ñàkk Seydina Ousmane mi nga xam ne tey jii moom la suñu borom dogal sëñ bi boole ñoog moom mu am lenn loo xam ne da koy yëkkati ci kàddu fàttali jëm ci lii nga xam ne moom lañ ñi lii nga xam ne moom lañ bëgg di ñaan suñu borom jàppale ñu ci muy xale yi suñ borom def alxuraan ci ñoom li ci nekk ba tax waajuru nekk war cee farlu te góorgóorlu ci ak li nga xam ne it mat na cee bàyyi xel. jàpp ne tey jii boo fi andee sa doom rek daa doon loo xam ne ci ab diir bu gàtt lu war a am la ndax loolu moom ci suñu loxo suñu borom la ne waaye jëmm yéene ji rek bu la ko suñu borom fayee moom kenn xamut nu mu suñ sëñ Ousmane woon ci ne du ñàkk ay kàddu yoo xam dana ko yëkkati.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 bokki jullit yi bokki taalibe asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ah, mu mel ni ki ñu ngi tub ubbee suñu suñu suñu kaddu ci sant yàlla bu baax a baax a baax ci teewal gu rëy gi nga xam ne boole nañ ko ci wala boole nañ ci te muy lislaam ak lu baax rawatina yu baax yooyee bokk ci yàlla gën a bàyyi xel ne na ci gën a baax te muy alquran ñi nekk ci di ci nab nabi ba yàlla dogal ñu toll ci fii ñu ci toll waaye tamit mbokk yu baax yi nga xam ne ñoo ne barab bi ñu leen ci ndokkeel bu baax a baax di leen ci ñaanal yàlla yéene ji sa borom jëf ji te nangu mboolem yëngu yi ak tiyaabo yi waaye te yokk mboolem di koy taxawal muy wërsëg ak wér ak xalaat ak xam-xam yëpp yàlla na ko sa borom yokk nu mu kawee gën a kawee njot ci baaxub Sëriñ Tuubaa di ñaan tamit mboolem ñi jiite liggéey yi ñu ne ci kanam ñëpp suñ boroom dëgëral leen ci mboolem luy tax liggéey bi gën a jëm kanam ndax lu mel nii rek bu yaatu woon daj fépp rek lu baax dana daj fépp jafe-jafe dana jógee fépp fu mu nekkoon booloo ci lu baax. di ci def ak di ci wax ak di ci xalaat loolu mooy la li nga xam ne mooy li lislaam bëgg lool te muy mbooloo moo xam ne nii mbooloo mu barkeel la ndax lii ñu taxawal daara nag ku ko wax wax nga ñeenti nit yu ko seq ba sax lu ko ëpp muy aji jàngale ji te muy sëriñ daara bi ki muy jàngal te mooy donga bi ak waajuru donga yi te muy muy waajur wu góor wi ak wu jigéen wi ñett ñu ñëpp nag dafa am lu ñu war a bokk def ko àndoo am benn résultat buy sotti ci gone gi bu ci njëkk mooy sëriñ daara bi na nangoo jàngale dong daara bi nu bëgg jàng sëriñ maanaam waajuru dong bi na nangoo muñ tey dimbale dong bi ñett yooyu bu dajee rek liñ bëgg mën nañ ko am yàlla nañu ko yàlla defal at mu ne rek lii ñu fonde yàlla na jëm kaw ci lépp ci taxawaay yi ba tax li am ak ci yaakaar yi suñ jëmm yi ak ci dongo yi yàlla na kawe njort lii nag ak jaamu yàlla gu rëy la nag war na ci kenn war naa leer ci ku ne jaamu yàlla gënta rëy jàpp ci loxol gone fas yéene ko yóbbu daara ngir mu jëlee fa waxi sunu borom mu nekk ci ab dënnam muy ab julit rawatina muy ab talibi di am murit lolé day lu jaadu ci mom day lu war ci moom eh, mu mel ni ki nak e eh, buñ jotaayee ni warna am kaddu gu leer gu juk ngir leral lo xamni bayiko noné dana man na baña gën té moy alquran naka la ab julit wala taxawé ci alquran moy Man Ko jang rek su ko mënee rek am ndam. mokkal alxuraan dafa dafa nekk maanaam ni yàlla di jëlee ci biir nit ñi jël ay am-am ëppal leen ko ci ñeneen ñëpp mën nañoo daje ci am waaye dana am ñu ëppale am-am loolu mooy mokkal alxuraan ci biir xeet wi lu ci nekk taxawaay ba mu laaj man bu amee rek la ca sës te war a am te sababoo ci jëf ji nit ki jëf mu yéene ja. ak jema a taxawal yene ci ci jëf su amé rek mu am alcorane das koy mokal deug la li jitu won ta moy manam mas gi alcorane njëkk wacc ci ñom ñaka a dañ leen lim ci ay baram waye ñak gën ko ñak mokal du senu yafus waye ni jamono teddi won ci ñom ak bi alcorane dik fimu len fekk ci ab ab ci ab as ay at yu bari yoy da waral mënuñ ko waaye nag ñun ñu ngi yor gone yoo xam ne nii ci xëyee ngont yi doyewuñ leen dara rek lu jàngaloo leen alxuraan yor keneen koo xam ne nii xëyee yi dara nekk itteem lu jàngale alxuraan loolu su dajee borom xel danaan a ah, lii war naa mën a gaaw waaye alxuraan mu bëggul ñu koy gaawantoo alxuraan jàng ko noppi te taxu ko jóg danga koy jàng te ba ki ko mokk la ki ko mokk ki ci xam lu bare ki ci xam lu tuuti yëpp ci bokk yam ñoo ci bokk ndigalul yàlla ni mu jaadoo ci nit saa xëyee dana am lanteeg ndox noonu la jaadoo ci ab jullit rawatina ab murit saa bu xëyee dana war naa am lanteeg alxuraan ngir mu dundal ak ruuxam yokk ko ndax am na benn xeetu dund boo xam ne ni ñu ko séddale ci dund bi naan dund bi am na vitamine bee am na vitamine bee ko ëpp vitamine alxuraan mooy dundu ruux gi ëpp solo gi ëpp vitamine ci dund ruux doomu aadama mën nañoo tegtaloo ñaari ay ñaari bayiti sëriñ bi nee na fa man araada al qurba min mawlaahu ku bëgg jege yàlla nee na fan yaqra il qur'aana na ngay jàng alqur'aan fu yaqra wax maanaam da tiim téere bi di jàng njàng ma nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam na ko nee am na koo xam ne buy jàng day nab nabi fa lahu ajraani kii nab nabi ci alqur'aan yonent bi nee am na ñaari tiyaabo ki nga xam ne da koy jàng nag ànd di ko jàngee njàng bi gën a xereñ ci njàng yi kooku nee na bu ëllëgee maa safaratil kiraamil barara lol bu amul ñeek bàyyi ju am june su ko mënee may doom dan ko may su ko ko mënta may té man ko ko jëndal dana ko jëndal waye ñeek ga moy rek nang ko joxé nang ko mu jang kon li ngeen def lu reey la ñi ngi ñaan yene yépp yalla ko yalla sotal ci def ci barké ci njaboot gi li ngeen ci sentu lepp yalla na am té yalla ñu ko yàlla jàppandalal ñun ñëpp ba buñ fi dajewaatee dal dañ nan ah dox bi dal gaaw na lool maanaam résultat wu dox bi gaaw na lool loolu ma yàlla mën na ko yàlla yàlla def eh, ñun de fas nañ yéene jàppe daara ji comme suñu bopp ci lépp nag bàyyiwuñ ci dara ndax man ni ma jàppee ne da ngeen ciy jaamu yàlla noonu laa jàppee ne dama ci jaamu yàlla ak nag lu ci mën a am man damay jàpp ne damay jaamu yàlla ci gone yi jàngaleen leen alxuraan yar leen ci yarub lislaam jubbante leen nandal leen ci yarub murit te mooy yarub bi nga xam ne mooy al adabul xasana li Sëriñ Tuubaa waxee woon ne lii la wax ne moom mooy aw kéem al imaanu billahi wal islaamu wal adabul mardi ndax adabul mardi yi it moo waral lii ñuy gis fii fii ci suñ fan yii nii nga gis ko adabul mardi yi mooy nit koo xam ne nii dana mën a jaxasoo ku te bu ñëpp te bu noppee jëfam dara maanaam jikkoom dara du ca manqué mooy yar nit ba mu mën a jëf ba ñëpp mën koo jëfandikoo te duñ ko wàll seen jikko ba mu mën a jëflante ñëpp te kenn du ko wàll jikkoom du ñaaw waaye moom fu mu jugee nit ñi xoolaat ko bët ne kee mooy kan fan la jaar kan moo ko yar ndax nit yar moom day wax al adabu wala al xuluqu yatakallamu day wax maanaam ni muy waxee mooy boo jëflanteeg nit ba noppi rek mu xalaat ne kii kat lee ne ci moom kon loolu ngir ñu am ko ñaari yi mooy am faaw ñu am barab comme ni ñu ko amee fii am jëmm juñ yaakaar ju xeebu lool ju mel ni man ñu ngi jéglu bu baax ci kanam kilifa gi ñu ko yëkkati waaye bëgguñ ko wax rek ngir bàyyi loo xel eh, maanaam ñu ñi ñu ko seq ñëpp rek ñi ñëpp àndoo am benn taxawaay am benn yéene am benn benn eh, engagement boo xam ne ñëpp dañ koy am bu ko defee du metti ci kenn waaye bu baaxee it ñëpp lay baaxal